daal defal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara fan yi noo ngi ci tabaski ginnaaw bi ñu àndeek ujaaj yi ba ñu jóge ci réew mi dem ilal madina nar faa jóge dem ila maktal mukarama di massawu nag réew mi yépp waaye di massawu Afrique gépp di massawu gone yi la soxna sa bayoon muy xaar bay ma jaaga ku leen juróon yërëm leen wax ji tabarkàlla feeñ na ndax gone yi niñ dogoo ci bàyyi seenum réew mi ngi bëgg a yéeme aw jigéen a ngi ciy tàmbali rax aw mag a ngi ciy tàmbali rax lan moo xew lan moo xew ba nit ñi bëggatunoo nekk seenum réew africain yi lu xew lu tax Europe bëggul africain yi dem fa waaw su fekkee bëgguñoo dëkk fi ñu nekk nanguñ ñu dem fañ jëm lu xew li xew jar na njiit yi dirigeant yi ca fëleeg ci fi waxtaane ko ci wàllu diplomatie bañ a yërëm waxtaan wi waxtaane ko woo gone yi bool leen ci waxtaan te bañ a tànn gone yi xanaa woo gone yi yépp déglu leen lan moo xew ndax danoo gis ca Europe luñ gisul ci seeni réew ndax dañ fa mën a am luñ amul ci seenum réew waaw bu fekkoon mennum réew la ci Afrique ñu ne waaw mais man nga ne réew yépp fi nekk nii ñoo bëgg a fàq dem ila Europa loolu dey jar na toog waxtaani Sëñ Mbàkke Sylla waaw moonte nit di léeg-léeg mu jóge fii dem foofa di fi liggéey liggéey boo xam ne am na fii bu dee liggéey ca tool ya suufu Espagne su tàllee it suufu senegal si tàlli na mbaa mu gën koo tàlli am nay espagnol yu jóge españ ñëw fii di bay si waaw bu dee yeneen liggéey itam mu ngi fii waaye daal jar naa tooge waxtaani bu baax xóotal waxtaan wi ci niñ ko war a xóotale ba xam lu xew nga defee ne bu Afrique meloon ni orop kenn du bàyyi sama réew di fa dem dëgg la munta xëy mel ni waaye yaakaar mën naa am te ku am yaakaar foo toog mën faa xaar sa yaakaar yal na nu yàlla dimbali xam naa ca jotaayi al bidaaya mag sëñ Mbàkke si la jëmbal ñu ñëw ca mu gën a yaatu bu nu dellusiwaatee ci liñ doon waxtaane muy tabaski ñu yëkkati jataay bi démb ñoo ngi tolloon ci salaamatuhaa moo di wér-gi-yaramu xar mi mu di wér-gi-yaramu xar mi xar mi gisoon nañ ci ne bëgg nañu mu bañ a nekk xarum benn bët bu mu nekk xar mu feebar ba lompoñ bu mu nekk xar mu yooy ba amatul yàpp waaye bu ñu nekk bu mu nekk xar mu dara ca cër yooyu damm damm na foofu lañ tolloon démb bu ñëkkati jataay bi ñu ñëw ci tomb bi ci tege mooy ku doomoon ca marché ba di tànnum xar boroom kër gu dem ca marché ba di tànnum xar su gisee xar moo xam ne capche la mooy kuuy bu ñu nee kuuy mooy xar moo xam ne tàppuñu ko ndax boo demee ci ñu yar xar dañuy jàpp ne xar mu ñu tàpp mooy gën a neex a yafal ci xar mu ñu tàpp ndax xar mu ñu tàpp du soxla xar yu jigéen yi xar mu ñu tàpp mën naa topp ca ñoom ba du lekk loolu moo tax lenn ci yarkat yi daan tàpp xar walla ñu moor ko ku dem ca daral ga fekk fa xar moo xam ne moom kenn tëpp ko kuy la eh, mu nekk xar mu am béjjën xar mu mel noonu alayhi salaatu salaam daf koo masa tabaske ñu koy roy ci lépp lu mu def ne ko demoon ca daral gis fa xar mu mel noonu xar moom mooy gën ci xar yi waaw ndax alayhi salaam tabaskiyam ma siiw na waaw albuxaari yi nettali ko muslim nettali ko albuxaari yaa ngi ko nettali ca cinquante cinq cinquante huit muslim a ngi ko nettali ca dix neuf six ñu ne anna annabia sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni am la xayni aqranayni waaw mu nga wok alayhi ñaari kuuy yu ami béjjën waaw te tàppuñu leen am la xayni borom firikat ya ñu ne mooy xar mu weex moo xam ne dafa am ay timpi tàmpa maanaam yu ñuul yu xaalituhu sawaat waaw moo tax ca muslim boo weesoo addis ma doon wax muy dix soixante-six boo ca tegee dix-neuf cent soixante-sept lay wax ne amara bi kabsin aqrana yata'u fi sawaat wa yubriku fi sawaat wa yansuru fi sawaat alxadis rawahu muslim mu ne ali salaatu salaam dafa tabaske kuuy moo xam ne dafa am ay bëjjën tànk ya am ay ñuul-ñuul dafa weex boog tànk ya am ay ñuul-ñuul biir ba am ay ñuul-ñuul bët ya am ay ñuul-ñuul xam naa xar mu rafet lay doon tabarkàlla koo gisoon ci daral gi tey waaw eh, uduya mu dim tabaski eh, sopp nañ kon mu rafet sopp nañ mu baax waaw te xam ne yàlla bëgg na ku koy defal nga def lu baax alxuraan a ngi naan dalika wa man yuazim shaair allah fa innaha min taqwa al qulub ko ci xam ne lu yàlla am nga màggal ko lu yàlla am nga réyal ko yooyu daa bokk ci taqwal xuluub bi dafa bokk ci def ci xol ak ragal ci suratul xajj aaya 32 la ko wax waaw ibnu abbas ba mu koy fiir ba ak si ca mu ne duufal xarma rafetal ko waaw moo tax sax léeg-léeg nga gis xar mu ñëw ci kër gi tilim waa kër gi sang ko waaw waa kër gi sang ko ba mu set wutal ko ripaas ak ngooñ ndax wa man yuazim sha'airallah fa innaha min taqwal xulub kere bi aadama amee ñaari doom ñuy xëccoo jabar ba mu leen sante ñu def qurbaan ka def lu baax la la yàlla nangul ka ko tegul fenn yàlla nangulu ko ndax kenn ka daa wutim xar mu baax rendi ko teg ca montagne wa kenn ka dem wuti ay gubbi mboq walla ay danki ceeb teg ko ca kaw montagne ma kenn nangulu ko innama yataqabbalu llaahu minal muttaqiin moo tax mu ñëwee ci tabaski atte yi am ci xar mi bàyyi ci xel baax na waaye pénc mi léeg-léeg fa yëf yee jëm mooy xotti yaag jasneer laag basin laag jippiir laag yooyu tabarkalla moo tax xarma seer naag bari naag yu ni deme ba ñu laajee aleyhi salaatu ci Buxaari yi hadis vingt cinq dix-huit ayu riqaabi afdal qaala alaaha thamanan wa anfadaha inda ahliha loolu dañ ko laajoon eh, xar yi mu ci gën mu ne ba gën a seer ba gën a gënal ay bokkam maanaam nit ña waxin la ci kon rek ne su fekkee nit kaa nga ca nekk te man ko na ko defee mu baax na def xar mu baax ku tële wàcc ku tële wàcc ku tële wàcc ba baa ba baa mu lay wàcc waaw ku tële rek wàcc ku tële wàcc ba baa mu lay wàcc al imaam ibnu xusayma ca ñoom la bokk ba dema ci saxiix ibnu xusayma 14 291 loolu Oustaz Cheikh Tanja ñoom ñoo ko jàngi woon mu ne kulluma kullama azumat ru'yatuhu inda al mar'i kaana azamu li thawaabi llahi ida axrajahu llah aw axrajahu lillah nee na xar mu ca gën a baax moo gënal yàlla bu fekkee yàlla tax xar mu ca gën a baax ca xar ya bu tabaski jotee xar moo maa gën bu fekkee yàllaa tax waaw kon mbokk yi maa ngi ci tabaski maa ngi toll ci xar mi xanaa dañu ñëw ci tomb bi ci tegi professeur mooy mbirum rendi mbirum ren li moo di fa paaka teg ci bëli xar bomb jëm suuf bomb jëm kaw am na ñu ko mokka lool spécialiste lañ ci mooy fa teg ci baat bi dagg jëm suuf dagg jëm kaw waaw boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne Euh, subag iid ga lañ koy rendi yoor yoor ba ginnaaw julli ga ginnaaw julli ga lañ koy rendi bu fekkee julleeguñu du wér waaw bu fekkee julleeguñu du wér moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ne ndax imaam rendi na loolu lañ ci jublu boo àndeek imaam ba imaam sëlmal bu rendee gutoon boo rendee dana wér waaye li tax ñu ne imaam ndax imaam rendi na mooy dañoo bëgg wóor ne kon julli nañ ba noppi loolooy baatu imaam rendi na waaye bu imaam jullee woon tey jàkk sàngam bëgg dem këram door a rendi mën naa am du sotti moo taxit léeg-léeg am na ci barab yoo xam ne dañuy indil imaam am xaram ca barabu jullikaay ba bu imaam jullee ba noppi ñu tëral ko xar ma mu rendi ko képp kuy ñibbi yëg ne imaam julli na ba rendi kon nag ko rendee ti wér waaw loolu ab hadis la boo xam ne bi al imaam Nawawi ca saraam ba ma ngay génn naan muslim al imaam muslim génn na ko ca sax yi mu ne yonente ba alayhi salaam daa wax ne man daxa qabla salaati fa innama dabaxa li nafsihi wa man dabax bada salaa faqad tamma nusukuhu wa asaaba sunnatal muslimin rawaahu muslim muslim moo ko nettali dafa ne alayhi salaatu salaam nee na ku rendi te julleeguñu sa bopp nga rendil rendiloo yàlla tabaski woo sunna ko ren di tabaski waaw moo tax ndaw ko ndaa ba dafa jël aw bëy ndeysaan ca daral nga ndax bëy la am waaye rus na koo ren nit ñiy gis waaw rus na koo ren du du imaam Ndaw nag bi moom du imaam Ablaye Ndaw <laughs> beneen ko ndaa la waaw na koo ren di nit ñiy gis ñu salaatu rek mu jóge ci julli ga rek daal di koy rendi fees toj def yépp denc ci bopp baag yeel yaag der ba ca waañ wa doom ji di fa ba gis ko rek jël ko fab bopp bi teg ci boppam moom di daw dugg koñ bi nag dugg koñ bi naan leen paa bi bay la tabaskee waaye loolu njàng mu rëy ci nekk moom ginnaaw paa bi day tabaskee bay ndaw ko ndaa bi te yàlla bëgg na bëy ndax mooy deuxième catégorie loo ci nëbb nit ñi nëbb gi mu koy nëbb nit ñi nag sunu borom xiir doom ja mu dem génn ko yenu ko di leen ko won kon bu kenn rendi xabla salaati lu jiitu julli iid gi yonentu nee na ko ko def sa bopp nga rendil defoo sunn waaw yàpp rek nga am mu ne koo xam ne kii dafa rend nag baada salaa kooko àgg na ci fi sunna bëgg àgg def na ak jaamu yàlla waaye def na sunna jullit yi ba dema ca muslim ca jukkib juróom ba xatum junni ak juróom-ñeenti téeméer juróom benn fukk ak benn ca la andi addis boobu waaw mu nga beneen addis ñëw na di dëgëral addis boobu di ko feddleeg di taxaw ci wetam ak di ko jàppale muy xadisu albara ibnu azib mu ne alei salatu salaam daf leen doon xutba bisub tabaski mu ne wala yasbaxanna ahadun xata yusalli aw xata yusalli aw kama xaal mu ne bu kenn ci yéen ren di te julliwut ba noppi bu kenn ci yéen rendi te julliwut ba noppi waaw loolu la alayhi salaatu salaam jàngale foofu bu kenn rendi ba noppi wala bu kenn rendi te julliwut ba noppi waaw al imaam ibnul qayyim rahimahullah ci azad mu ne fa innahu lam yakun yada al udhiya wa kaana bi kabsayni wa kaana yanxaruhuma baada salaati al iidi daf doon firi na yonent bi daan doxale mu ne alayhi salaatu salaam musuñoo dem am at mu jéeg tabaski ni ñu woon leen tabaski ba ni mu fi bàyyi ko am nam at dafa tabaski ñaari kuuy moo leen rendi waaye dañoo julli ba noppi mu door leen a rendi dañoo julli ba noppi mu door leen a rendi waaw nit ñi nag léeg-léeg bu imaam sëlmalee taxaw di fa xutba nit ñi ne ko fa ñukk dem seen kër waaw la gënoon mooy am teggi ni toog déglu xutbab imaam déglu yóbbal bi déglu kàddu ya fay jib déglu waaraate wa déglu soññaate ba door dem sa kër waaye am nañu bu imaam walbati ko rek bu ne allahu akbar kabira rekk nu commencé jël seeni sajaada tàmbalee ñibbi yaa dégg loolu ëpp naa def waaw loolu ëpp naa def mu ngoog mu ne kon ku ren lu jiitu ñuy julli fa lay semine nusuk fi shay deful dara yàpp daal la am jox ak njabootam ñu tiim ko ba demee ci Saadul Maad euh, ca lañ wax loolu kon tomb boobu mooy waxtu wi ñuy rendi mooy na rendi ga tege ca ginnaaw julli ga waaw julli ga it teel gaa ca gën ndax koor gi nga xam ne moom la jullit yi di xëye ñu teelee jóge ca barabu jullikaay ba daañ teela a noppalu ci koor gi waaw daañ teel a noppalu ci koor gi moo tax teele julli ga ci tabaski moo gën yeexa ko ca korite moo gën ndax lislaam li muy teg da koy teg ci nite nga ne ha mu ne waaw bu dee tab korite nit ñi dañuy xëy di génn asaka muddi koor kon imaam mën na leen a may ab diir tuuti ñu nekk ca asaka muddi koor ya di natt ka génne bu ko defee mu yéegal waxtu julli bu dee ci tabaski comme ku xëy dangay ngay woor ku xëy dangay ngay woor imaam teele julli ga yeewi nit ñi ñu dem dog seen koor waaw ñu dem dog seen koor euh, tabaski ci rend gi góor mën naa rendi jigéen mën naa rendi mu kàllaf mu ne mën naa rendi waaw bu fekkee rendi jot na nag ba ñuy rendi sopp nañ na xar mi jublu xibla na xar mi jublu xibla mel ni mel ni danga ciy déggee ne bu jubluwutoon xibla it baax na wér na waaye jublu xibla ga lañ ci gën a sopp yustahabu an yuwajjihaha ilal xibla waaw kii rendi it kii rendi it bëgg nañ laay ji su mokkee mu jàng ko loolu bëgg nañ ko ci mooy wajjahtu wajhi lil si fatara samawati wal ardi xanifa waaw loolu bi mu téemee xar mi di rendi ŋàbbu paaka bi bum ko ca tafli ca paaka ba déedéet baat yi muy wax rek mooy jëmale naa sama jëmm ji ki ma bind bind asamaan ak suuf won ginnaaw lépp lu dul moom allahu akbar li wajhi lillazi fatara samawati wal ard xanifa dëgmal naa sunu borom jëmale naa ko sama jëmm ji wan naa wan naa ginnaaw lépp lu dul moom allahu akbar lépp lu dul yàlla wan naa ko ginaaw tey bi ma jàkkaarloog moom lépp a ngi ci sama ginaaw wa ma ana minal mushrikina duutuma bokkaale walla duma duutuma walla duutuma masa bokkaale hmm ah, waaw duutuma bokkaale duutuma masa duma seeti kuy petaawati à partir li tàmbalee ren duutuma joxorati duma duma liggéey lu nit duma dem ci buxaaba duma ma seeti maaman waaw mën naa talal samay loxob sëriñ nag mu ñaanal ma ab sëriñ mën na maa bindal ma naan mën na maa bindal ma def ma la ca yónnante ba indi ci ay nas yépp nangu naa ko def lum ci amut nas nag xel mu rafet duma ci dugal lépp lu yónnante bi indi bu ko samam xel nangoo ma jël bu ko nanguwut ma jël lépp lum indiwut xel mu rafet du tax ñu ma jël qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin mbokk yi bind bi jeexut tabaski jeexut tabaarakallah bu ñu dégloo waxtaanu lëndi ay eh, ngeen baal ma vendredi ak wu samedi ak wu dimanche ndax ñoom ay temi seen temi bopp lañu bu vendredi bi